Biolite, une gamme complète de soins révélateurs d'éclat à la fleur d'hibiscus. supreme bi tàkkul dina wax Badara mu ñew defal ko wax ko ko def do bëgg a tay Nafi Nafi ma nga wax ak yow xamoo sax limay wax naa fi seetlu naa fan da ngay absenté. Ba da nga am problème. non aw ma benn problème ça va je vais bien. ah wala bok. li nit ñi di wax ci sa mariage bi la. li ma man di nit ñi di wax. c'est mon mariage c'est ma vie y a rien franchement y a rien. man maa la yar lu nekk ci yow rek dama koy xam man xam naa ni temps yi danga am problème. kër gi kenn mënatu fi ndékki ak jàmm non mais voilà. waaw doo yéegale sa ndékki na. gaarwaale imaam lu muy gaarwaale imam na ma bañ a moytu imaam looy wax doo di wax xulli di wax looy wax ah waaye xool amu Moustapha dara amu Moustapha dara amu Moustapha dara seen imam bi ngeen war a wax mu bàyyi gaar waalem gi mu nekkee man rek nekkuma ci li jàkka ji na ma moytu ah waaye amul loolu waaye ah topp benn rek di ko gaar waale ah da ngeen war a jabar sen alal bi ngeen am alal moo gis na ma may jàmm bu ma moytuwul imaam bi su ma moytuwulee dina ko dóor ci jumaa ji ba mu eh, eh, yaakaar eh, ma may yow mi ku jara waxal nga Moustapha dañuy wax yow ah ki nga sunu jàkka ji du salle de boxe dama koy def saalu riij bi na ma imaam bañ a moytu def ko riij bi na ma imaam bañ a moytu dóoral imaam seen na ma bañ a moytu jàkka jàngoo na ma imaam bañ a moytu ma tur ma tur waroon na kaa tudd rek mu xam <laughs> la ta tuddul ma lu ma bëgg ngeen xam ko <laughs> gis nga gis nga ilimaan buy wax naan yàlla nee na mhm. yonent nee na da ngay yakar ne yow lay wax. na waxta bañ ma xol ah. lay ñang na waxta bañ ma xol yeen ñi nak yéen deung dëng. na waxta bañ ma xol ngeen japp ni yeen lay waxal. wa baxna na ngeen di changer seen jikko yi. seen comportement yi ngeen wa baxna lolu kessela lolu moy affaire bi. baax eh, eh. na mbir mi sax du lolu mhm. man damay takk ñaareel. Eh. nga ne. al khamis bi di ñew kan te yeen ñi nak yéen koy ñaan ji yéen. ñaareel man may tak ñaarel man. <laughs> yow kala tak gor fit. nga ne lan. kala tak nafi lan. <laughs> men. nafi waaw. yow yaay ni nafi di ko yokk yow war ngaa takk Nafi yow. lu ne ci Nafi kii bi ni tudd Nafi yorul ni ci loxoom tudd ko. waaye la kii tudd Nafi. waaw mais garab ci kaw lay fekkante ma garab nga ma garab nga kii kii. xam nga lu ma pédophile nga de. ah ah ah pédophile nga waay yow. waddal sa wax nga naan waddu wax waddu ma benn wax. pédophile bu bon nga waay yow. la ñang yow maw lanca ga lekk. la yow. maw lanca ga sa lanc lancar bi naa ko fii laay waxati.

ñaareel dañoo warte nag maa ciy topp ah. Ah. maa ciy topp man non loolu lu ma man damay takk man ah da ngay am fit góor da ngay gëm li nga wax eh, eh eh defal ndànk yow baa la wax waxe ñaareel doo am doom ba pare mu ne tol doom oh, yow fi mu tol doogaay bi yëpp yow dong nga si amul doom o oh. ku naan ñaareel kuy takk ñaareel yow maa ciy topp man da ngaa fàtte fi nga dëkk doxandéem nga fan an la hébergé de del wax lu rafet dan la hébergé li ngay def balaa ngay takk da ngay foo dëkk doxandéem nga de doxandéem nga de

saa wuy ma yow nag moom xam naa ne booy prince nga bàyyi nag ma Sénégal amul reen amul roi nga bëgg a tudd prince loolu mën nekk woote yàlla nag moo gën bu nit waaw loolu moom maa ngi maanaam léegi damaa bàyyi fen gratuite nii fen rek après nga jël yóbbu dem ta tasi ji ko léegi da ngay fay léegi xewi na léegi fay la ah bon waaw fay la euro sama gaan nga de ma ne la léegi fay la soo ma fayul nga jug dem ma jox la yu bees sax yéen a ngeen a fay. waaw fayal comme say morom. ah non fi mu nii baax na. ba gaañ nga de. waaw loolu moom dëgg la mais xam tamit jàppal. sama jox de. ah yaa bëgg am yaa bëgg am lu bees. waaw non moom information bi xam naa ne fii la kéem. waaw yow yaa Euronews. waaw

aadana turaa dem aadana. nga ni waaye aadana. ah mairie moom. aadana peut-être yow itam. waaw te loo ci xamul. waaw may bu njëkk dem na. nga ni. douze millions francs CFA. nga ni. douze millions eh, non non non defal na defal na. naxit bi yaa ngi ko yëkkati de. non non non wuy ma xam naa li ma lay wax. naxit bi dañ ko ah. li naxit bi dina. ah non douze millions yi dama la ko proposé nii rek. ah sa proposition. ah non dama expliqué na leer rek. man c'est que nay leer rek. Ah. man ka am problème de. Ah. mais yow dama wax luy leer rek man. Ah. man damay yóbbu quoi. lu may bëgg lu may yóbbu na mi nay leer quoi. waaw waaw bul dem. waaw nan la chef de quartier nii la romb léegi. Oh, man wuy ma pare xam ah, man li ma jaay ni mun ma jafe juuti chef de quartier lu may doyee. chef de quartier waxul na. pour su ma la gisee ma avec tiir la. man waaw borom gémmiñ ngand yi lañu war a rey. góor woon woon. moom fi ko tee. dem nga ah, ah. ni ma ko.

mujitar ko takku ñaareel ñaareel wallahi les car mousquetaires du roi lebu ndoy mom bokku ci yow dama jojo kaddu bokku ci lebu ca biir les car mousquetaires lañ leen wowe pour tous am tous armés car mousquetaires ñu ngi ci takku ñaareel te gëna sama waaw kay ko fi di woowu moom moo tax lebu bokku ci gëna doy waar mooy nafi lay tax ma nafi nafi man nafi gëna googu dëkk fii ci ci wedd nafi mooy nafi xamoon nafi kay ku ne xam na ko ci kon kilifa de jamono rek def def youtube boo xam youtube yu baax ak affaire am rek te da aku neex ba neexul nag mais gone wax na ko waaye dëgg la nag da ngeen dem nag quatrième quatrième âge nag da ngeen fi bëgg di bàyyi seen di leen yi def leen ni xale def leen seen i au di nga sol seen i baa sol seen i baa nga koy tubay yéen takk nag seen i seen i ndigg seen i ndigg nga ak yu tànk sax kay ak yu tànk gone yooyu la ñuy def de waaye yéen yéen seen fer yu dëgër yi dijj yi yooyu lay jox Ablaye jërëjëf Sànqal lii la. déet. gëndatuma baax na ma bul ma def loolu waay. Ablaye baax na jërëjëf gëndatuma. am na ñeent fukk mu nekk. yoruma ñeent fukk. ñeent fukk mu nekk mu nekk yoruma maa ngi nii yoruma dërëm. wallaay. demal jërëjëf. a ah, Ndeye yow Ndeye Waare wax jooju wax yëpp mënu ma jar. li ma sama xol neexul demal rek Ablaye dégg naa la. ah Ndeye Ndeye ngeen de. matal ah. na yow itam. man nag maa demal Ablaye demal la dégg naa demal. Ah, waaw waaw libu li day bëgg am fi top ñang mbalo mi li bu mom may gi ci kër gi na dégg li ma koy wax ñang mbalo mi nga xamné bo tudde won gay sax mu rénd mako top ma dem ci kër ga dama dégg soño li ma indee fii laa bëgg a xam parce que man damay dem fii du ma fi toog. Hmm. léegi soñaa nga may wax amatoo ay bébé kii je vois ma ñaaw gan nga amul si man ba nga may jëndeeg na fi wax ma. est du lu mu am ci yow noonu yëpp. motax tay mu demé ni sama digënté ak yow yalla moko tudon yalla jéxal nako na rafet rek gis nga digënté buy jéx mo lu yow ya koy décider ak maag yow fuñu jaar yépp ñaaw li ma nga defal yépp ni nga may fayé defaloo ma ko ah soña dama la jappalé nga jappalé sa bop juma m'en fous la bi nga xamé ni so su duggé ni nga may def mënon nga ma ci bayé yow ñaa yaay nit ku bonne T'es un vaurien. Sale type. Sonia tu vas comprendre bu baax a baax a baax xoolal fi nga nekkoon ñi nga doon àndal du ñuy say nawle kenn du ci sa morom gisoon ci yow mbaax nag moo tax ma jaayante ñafe rayante ray sama bopp ba jële la foofu indi la fii nga jóge ci loolu tey xoolal nag fi nga nekkoon ak tey fi nga nekk nii tey. gis nga ko génnewu nga si.

ay xaw ma sama waa xaw ma. loolu mel ni ku ñu leen saali si diggante bi. <laughs> yow xanaa boy Nafi mo nek sa boobu ba tay gis ya boy du ko nëbb de mais boy j'arrive pas à oublier cette fille là. mooy Amine Tabassane kañ la commencé dal. ah <laughs> lu bari jo rend jéggi mo xamone mo nek ni boy Nafi du ku ñuy rend jéggi. wa ah, wér nga wa baal ma. bon attends eh, écoute. arrête waay waaw déglu ma <laughs> léegi yow qu'est-ce que tu comptes faire. booy je sais pas Oh mon boy, je sais pas Oh mon man ça va yo. ay je ne pas moi, ci te nga ñu wax waxu nit je ne pas. Eh, bi bu pas, ci su pas, da nga wax pas, xam def nga parce que le vieux là <laughs> il est prêt pas, nga xam ko oh, allons-y pas. ah bana, ah Boy.. réfléchis-y. ah Boy.. c'est bon c'est bon allons tu là tu fais ton joli cœur là voilà, <laughs> boy. eh. jël leen ay photo ci bi ngeen koy mën kat. doom rek yaay photo de waaye temps yaa. sa marial mu ngi def buzz ci dëkk bi. foo tourné am na fi jàppal na fi war nga sangu ci de. moom kay wax naa la ko nag. <laughs> gis nga jànk dëkk bi xam nga lan lañ ma mën a wax bàyyi mënul luñ ma leen ndax rab lañ ko sekkal. man de yéen a ma mën bu doon man kese. paniqué naa bu yàgg. yow moom bëreet tàppet nga. yéen moom nekkee fi nii rek dee leen dem rek. nii rek. waaw ah, baax na jërëjëf bala ngaa takk sama dara teg ko fa rek. ma jàngale dara lu gis nga dëkk bi nga def nga ñàkk def dinañu wax kon assumer say responsabilité rek man ne sama yos mët na sëkk xam nga lan laa seek ak ñoom sànni sama ginnaaw gi ci xaj di leen romb di def luy dagg seen xol te tuus duñ ko ci man hmm. ni ñu ko waxee de xamee ko sax noonu wax rek lañu def allo defaral ma réseau bi s'il te plaît. oui mën nañ gis Baye Sow lan nga ma war a <laughs> mën a doyee. mais soo ñëwulee mënoo ko xam. non tu me mets pas la pression je suis avec mes copines. Ouais, je te rappelle tu kanam. waaw bon façon maa ngi e restaurant bu ñu tàmm gisee ah. waaw ok c'est bon. yow moom fi nga jaar Barizo war nga ñu ko wax. Brésil ak ni muy wane ci dëkk bi nii la ñàkkee jom topp di la woon nii rek. instant bi xoolal xaw ma fan la ne ci groupe àdduna naan ma fekk si ma xaw ma lan ak lan ko sax faale ba di ko tontu. yow moom mais ñu ñun xam nañ ne Brésil moo dee ci xol bi. yow moom toujours en retard ñii rek toujours en retard ñu xamoon ni fii ñaa moo fi nekk. kon yaa ngi ci sa paa bi ba tey moom nga jëndee Brésil. jëndee xanaa ñaa ñu tolloo niveau ngay jëndante kooku da koy raw di dem instant bi koku xolal moy bama sama monde mm. te xolal mako na nar li nara a toj àdduna xanaa tiit nga bonne chance futur madame nyaway ko hat <laughs> ah. ko ma da dug ci bir làbba ji rek sagul ko ndax sagun ko ndax li ma re say bay fanan ko ci wer fanan ko ci wer yalla def na ko <laughs> kooku bu ma daadoo mu tas yalla def na ko ha ah, déet xam naa ne ah Mobile number. Lébu. Ndeye Fall éviter ah te maw tur wi nga tudda di yooxur yooxur yoo. dimbali ma yow kay da ngay takk ñaare yow. man yow. man man yow mii. yow faa ko déggee. muy yow loolu dëkk bi moom la ñuy waxtaanee foo tourné moom la ñuy waxtaanee nga fa laa ko déggee. waaw man sax ndey. man bama nexé ma tak ñaar ba ñett ba ne ah yow tak yow do am ñaareel yow la ñu waxante mo man ak yow ah nga liggéey indi ma liggéey indi ñu defal carrière baaba ko parce que carrière yàqu na loolu la ñu waxante mo man ak yow ah man baaba bima ma ko ëmbee damaa dem lamb dem ma pat ba nek sama bir bi nan ni nan ni nan ni ma xamni ki bu maggé bu mu juddo mbeur lay nek ah li nga wax nogu da fekk jitu na ko ci man baba biñ ko tudd ma téye baba mm, imam bi di commencé euh, tudd di def ay kiyam ni ma gis baba nan ni nan ni nan ni lama ma ki mbeur la nga bëgg sacrifier rek carrière foko tek ta nga xam lolu li ma lay yëgal mo du njang mala mu leen posal ay fit yow sa fit la laan nocc def ko ci balen ma këppi bis bu mën a nga waxu ñaarel wala sax nga dem tok fu ñuy waxtaane waxu ñaarel li nga xam man jéeg pire la ñak fayda ba bëgg a carrière baaba yow moy sa ñaarël dégg nga da nga bëgg ñaarël carrière baaba moy sa ñaarël na fayda ba leer na. xaw ma terroriste la xawma jabar la xawma terroriste jabar ja xamantene menacer guddii menacer menacé li li ban façon jabar la. waa Dieyna dinañ nangu sam papa takk xale bu ndaw indi ko ci biir kër gi mu fas yéene wujjanteeg sama yaay. mais yow su kenn yow sam papa bu takk ñaare indi ko si biir kër gi lan moo si sa yoon yow xale bu tuuti juddu ba kii de moo jaay yaa yaa koy lijjanti te sama yaay mi ndey mi gi nekk ci kër gi lijjantiwu ko yow ngeen yaa koy lijjanti damaa bëgg nga régler tayam place su xale. lu ma nekk xale xale xam naa ne loolu sama yaay du ko nangu. hee nga bàyyi sama yaay mu mu metti mu lijjanti ko mais yow sa yoon nekku si dama bëgg nga génn ci. yow yaa waane lan moo tax nga seytaane boo ma waxatee seytaane di nga xam du sa morom. lan moo tax sa papa wax eh, da nga ànd ceeg moom. sa yoon eh, nekkul lii lu mu doon yéen. yéen kan ngeen yab yéen seen takku papa ak man ngeen di lijjanti ngeen di ci bi ku ne di pour lan la da may wol la yaay eh, xam la wax. xam nga lan xamal du eh waaye yow may wax ngeen di wax yéen ku ngeen yab xam nga lu ma di xamal damaa bëgg ngeen tëjal ma seen gémmiñ lan la man borom bi dégg bu baax li ma wax na mujj tey waaye yow lii la mu doon maay sëy wala yéenay sëy yéen lañ jox si yéen ak bu ngeen bëgg maa wol waa àdduna. Ah? salaam. ba ngeen am jàmm. ça va ça Ça va les filles Ça va, Ok, on se capte après. Prenez soin de vous. Ligne m'a défini comment Tu vas bien que les filles étaient là Non mais c'est une raison pour me faire peur au resto pendant des heures. Désolé, mais c'est une raison Non pour mais moi. arrête, te fous pas de ma gueule aussi..! Eh, tu crois parler à qui Ay so ma sa dom de. Yow d'anga nga jossa ci ma temps di tontante ak yow. Bon, d'accord, excuse-moi, tu as raison. Désolé de m'être emporté. Bon, d'ailleurs, ça fait l'occasion, te là, de dire le bougon là. Mais je veux que tu me est-ce que tu vas te marier Mais toi, tu as du tout pédé. Non, non, non. Je me suis dit c'est mais je ne peux pas tant que je Oui, moi, je ne peux pas me Baizo, demain, je vais me marier. Non, mais je rêve ou quoi Tu fous tout en l'air et nos projets non mais de quoi tu parles Je fous rien en l'air, je vis juste ma vie. Depuis quand tu as une vie sans moi, Nafi Tu as changé, moi je te reconnais plus. J'ai pas changé. Baiso, yo yaiso ga yo. xale bu ndaw bi nga bëgg a takk ci loolu laa bëgg a wax ak yow. te yow mag nga moo rek may wax. te xale yi. Hmm. dañu uñu sa sutura wow nañu bët dang nañu làmmiñ ñime nañu looloo tax ma ne naa la ko wax te bugguma ko uñu sa sutura lii doo nga tax nag may wax du leneen ndax am nga droit takk ñeenti jabar kumba waaye dama ne woon rek nañ waxtaan kumba dégg naa la bu baax dégg naa tamit li nga wax bu baax a baax a baax a baax kumba yow umpale wu yow ku xam nga xam nga ma bu baax dama bëgg nag nga déglu ma ma wax ak yow. gis nga xale bii ngay wax nii di lim gis nga wóoboot boobu mu wóoboot bokk na ci yi ma neex ci moom waaw ba tax ma bëgg ko takk ma lay xamal nag ni la man du ma mag muy gone di jommal ndaxte dama soxor kele xamal naa la nag lu bariwul gis nga alxames bii di ñëw bu soobee yàlla ñi koy ñaani danañ ko ñaani dinañ ma ko may te dinaa ko indi fii ci kër gi mu sëy ma bëgg nag. Ya, nga dal yaa ngi dégg parce que yow dama la yërëm gis nga bu ma la yërëmul woon kon bilai dem di takki ñaareel ndax sa bakkan bii laay bañ mu rot nga faatu ñu sul la 2 0 laa la dóor moom dama koy jëli indi ko ci kër gi pour dóor ko 2 0 yéen ñaar su ngeen ma attanu damay dem uti troisième dóor ko 2 0 ma bëgg nag nga dal sa digganteeg moom nag du mat grand contre petit la loolu du match de yaa ngi dégg loolu Barcelone la ASC Mbaxal loolu laa bëgg nga dugal ko sa bopp xam ko bu baax nii laa toogee. waaw baax na. Sonia. yow lan ngay sama kër xanaa dangaa juum. juum dafa mel ni su juum di am yow mii yaa juum dugg samay 18. ci nen xamoon na du nee nga yow da nga réew. loolu ñëpp xam nañ ko. en plus nee nga yow da nga bu baax. ba pare nga ne yow faa réewoo kenn. surtout yow di nga xam ne ci man ngay teel <laughs> xam nga lan laa bëgg nga xam doo ñëw sama kër di tëbëk dal tu baisses d'un ton. nga wax ma li ma bëgg wax et eh, tu dégages eh, de chez moi gis nga yow soo juumee hmm. ba sey ak ñam je vais te faire vivre un enfer <laughs> jiko caga nga may jaay ma nga gën a lan moy caga tok sa kër xaax chaton ñoo tak ci ma fas yéene koo sëyi jil yu ko déggal ko lolay e don caga ay man sans sampere man yàlla naa don doon gis nga bés bu ma paree ci yow. Hmm. tu auras moins la crainte que papa bi. Hmm. man xaw ma ku ma xamul. du nee nga yow xamoo ma. Hmm. ñaaw xam na ma bu baax. man it xam naa ko bu baax. te nga ko dagay ci tànkam. ba ci catu karawam. jaaree ko ca noppam bu gauche. maa ko maîtriser man maa ko xam. <laughs> xam nga lan moo la rëcc. man maay ki jàll ci ginnaawam dama nga lijjant ji la moo tax mu takk ma wala mu lay takk yow looloo gën ci yow instant bi li nga may wax nii. <laughs> sa sëy bi nga nekk di bàkkoo nii. ay waay bu baax xam nga nga ko jàppee. Hmm. échauffement kase xam nga ni match bi benn match la. Hmm. te man maa koy <laughs> wuuy. BioLite, une gamme complète de soins révélateurs d'éclat à la fleur d'hibiscus. Vibe Radio, c'est surtout la musique qui cartonne. Vibe Radio. Vibe Radio. le nouveau son.